الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين المدني الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي عن شيخنا وقدوتنا شيخنا شيخ أحمد بامبا خادم رسول الله mbokki ñuy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dellu siwaat nañ ci émission bi ñu leen baaxoo amalal ngeen ci ànd ak seen mbokk Aboubacar Fall di nuyu mbooleem ñi nga xam ñooy internet yi ak ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel émission bi tey nag di fukkeelu fan ak juróom ñaar ci chehru ramadan al mubarak dëppoo woon ak bis bi nga xam ne mooy xazwatu badrinil kubra xare boobu nga xam ne bokk na ci xare yi nga xam ne mën nañu ni moo may lislaam liberté ba tax na euh, xare buñ xarewaat ginnaawam rek dañ koo xare waaye xare du gën a màgg boobu ci ci dayo ak ci euh, ak ci euh, màggaay hmm, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi def na ci njàmbaar goo xam ne ba ilaa yawmi diin dootul fay mook ñam àndaloon ñu di ay jàmbaar yoo xam ne ñoo joxe seen bopp joxe seen alal joxe seen lépp ngir taxawal bis boobu ngir xeexal seeni noon xeex ak seeni noon a bis la boo xam ne daal ci ci ci dootul dootul fay mukk mukk kon nag jaadu na bu njegsee ba ci ba ci bis bi naana rendre hommage ñooñu nga xam ne ñoom ñooy gaaye ko doon def muy saxaabatul kiram di waa ahlu badrinil kiram yoo xam ne ku ci mel ni Cheikh Ahmad Bamba Xaadimi moom bañ na ko ba def cee def téere bu lëmm moom ngir ay objectif yu bari bokk na ca mana ngir màggal leen waaye ak it euh, accompagne bu accompagnement bu am solo biñ ko defal ci exilam nga xam ne euh, wax na fu bari ni ahlu badri ni ñu ngi ànd ak man ci mawqif yu baree baree baree bari am na ci loo xam ne bam ci naree yegg waa ahlu badri ñoo taxaw رفع أهل بدر الإسلام وزحزحوا الفجار والظلام ak ci mbind yu baree bari yoo xam ne ci téere yu bari yoo xam ne boo demee di nga ko fa fekk lii qaada ahla badrin al usuda man zaxzax al waashiya wal xasuuda ci wàccuwaay yu bari ci taxawaay yu bari moo tax mu def téere lëmm boo xam ne daf koo def rendre hommage gaañe tudd ci seen tur ñoom ñëpp waa ahlu badrin nag am dayo ci lislaam ak wàccuwaay boo xam ne kenn mënatu ko am ngir loolu ñu def ci ci ci ci lu rëy biñ te jugee yonent sallallahu alayhi ni leen nit mënatu def ci waa ahlu badrin lu tax suñ boroom comptabiliser ko déedéet waa ahlu badrin moom jeex na jeex na lañ def jeex na loolu nag muy lu am solo donc bu ñuy lim ci ci rang yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën abubakrin moo ci topp bu dee ci saxaaba yi ñu ni xulafa ur rashida ñoo gën buñ paree ñu ne asra mubasira bil janna buñ paree ahlu badrin la ñuy teg te sax asra mubasira bil janna xaaj ba ña nga ci ahlu badrin kon daal ahlu badrin ñooy ran wu saxaaba yi nga xam ne ñoom euh, bokkuñu ak yeneen saxaaba yi ci des kon yàlla na yàlla fayal ñu leen loolu ñu doon def ñun ñoo taxoon ñu koy def kon nag leeral nañ keroog bañ ca jógee jihaad ja ca yu demee noonu jërul di ñëwaat waaye ala kulli xaal euh, ñu leen di rendre hommage ci bis euh, bu ko defee ñu ngi toll woon fi nga xam ne moo di euh, bi nga xamee ni muslim ibn aqil rey na ci ñoom ci gaa yi ko songoon muy soldaaru muhammad ibnu al ashas al kennedy boobu noonu ñu laajte renfort bi ñu laajee renfort ibnu ziyad daal leen ni tuskare ñël na leen bu fekkoon dañ leen a yónnee keneen ku ko ëpp doole nag nan ngeen di def benn nit rey ci ñu yéen téeméer ak juróom fukk euh, bi mu waxee loolu ibnu asans ni ko yow kat ma arsaltani ila rajulin min rijalil kuufa yow yónni maanaam yónni woo ñu ci benn chevalier bu dëkk Kuufa déedéet wa innama arsaltani ila laysin humaam wa asadin dirgham maanaam yónni yónni woo ñu ci eh, nit ku dëkk Kuufa dangay ñëw yónni ci ak gaynde goo xamee ne si nii maanaam gott ba mu nekk wala àll ba mu nekk moom rekk fa nekk xiifa xiifa xiif ba ba ba xiifatul nga jël ay bukki sànni fa te danga nga ñoo aussi wa sayfan min suyufillahi almalikil allam da nga da ngaa jël <clears throat> ay jaasi rek sànni ñu fa ngir njàmbaar gi muslim ibnu aqil wane léegi nag mu yónnee waat juróomi téeméeri gawar moom ibnu ziyad bi gawar yi egsee ci ibnul asas al kennedy muy euh, sol euh, chef de guerre bi بنيو اكسي مسلم يوخوات خاتو حمل فيهم وصاح عليهم كالاسد الكاسر والوحش الناقر ريت نيوم لو بري بري بري بري بري بنيو خولي نك ني كي جامبار جي نيك تي موم دا فا اوب انا ني مو مل دا فا اوب غير تي جامبار دا نجيل بن استراتيجي دا ني كي بو فكيني تيغو ني بن افير pexe luñ ko duñ ko rey dañu mujj daal di taal sawara di ko sànni ay xeer waaye même bi ñu ko sànni ay xeer moom faalewu mi ngi nekk ci li mu nekk rek foofu la nekk di leen rey ba mu des juróom fukk ci ay gawar ah kon njëkk naa rey cent cinquante ñu yónnee waat juróomi téeméer mu boole yépp rey ba mu des juróom fukk moom muslim ibnu aqil loolu di xanaa yàlla yàllay kese la ibnul asas daal di yónnee waat ci ibnu ziyad adrikni bil xayli wa rijal yónnee waat marafor fa baata ilayhi thamanu miatin wa qul lahum waylukum aatuhu l aman wa illa di ngeen jeex tàkk mu yónnee waat ci ibnu ziyad ni ko adrik nii bil xayli wa rijal joxaat ma renfort waa ji waa ji du nit mu yónnee waat juróom ñett fukki maanaam euh, juróom ñetti téeméer bu njëkk ba juróom juróomi téeméer la woon beneen bi ci toppaat juróomi téeméer junnee ngook ñu yónnee waat juróom ñetti téeméer xanaa kon euh, junneeg juróom ñetti téeméer a ngi noonu mille huit cent solda ñoom ñëpp xaaj bi lépp tëral na ñoom ñëpp léegi nag ibnu Ziyaad nii dinaa yónnee waat waaye da ngeen di jox leen ko amaan amaan ci ci xeex mooy loo xam ne maanaam da ngeen di teg benn genre pacte que ni ñun bàyyi nañ la léegi arrêté xeex bi bu ko defee ñu ñu ñu jël la yóbbu ba xam euh, lu lu lu lu buur bi def ci yow exemple lu ibnu Ziyaad di def ci yow ñu jox ko amaan. léegi nag euh, bi renfort yi ñëwee ñu xool euh, Ibnu euh, Asas ñu xool ci soldaar yi gisuñu ci ñu mën a xaaj bi dee nañ ñu ñu ko Ibnu Asas jox ko amaan biñ ne ko jox ko amaan muslim jëm boppam moo ngeen xool neen laa amaana lakum ya aada allahi wa aada rasuli du ma nangu amaan bi dañuy xeex rek moom dem na ba xeex bi bëggatu ko bàyyi te ñee ñoom pare nañ ci xeex bi suur nañ këll ngir njàmbaar gi mu wane mu dal di xaacu duggati seen biir di xeexati di xeexati ba juróom ñett fukk yi mujjee ñëw mu rey juróomi juróomi yi benn waaye jóge fële daal ni kii bu ngeen ko moytuwul dina leen jeexal daal digle nag ñu ñu ñu gas ñu teg benn pexe ñu commencé di gas ay pax ay tinal ci tinal yooyu lañu gas bi ñu gasee ba mu ba mu ba mu euh, ba mu yaatu ñu mel ni ku ko wër kenn ku nekk di ko kar ci côté ba mu mujj dugg ci biir tinal bi ñu tiim ko ginnaaw bi lañu woo ibnul asas mu jàpp ko dóor ko jaasi ci kanamu ci kanam gi bi ñu ko dóoree jaasi ci kanam gi dóor ko ci côté bëñ yi bëñ yu baree bari dañ ñu jàpp ko comme prisonnier di ko diri jëme ko al qasrul imaara muslim ibnu aqil bu ko defee bi ñu ñëwee ba ci buntu pale bi mu ngi mar-mar wu tar moom euh, muslim bi mu yégee ni mar na mu wax waa ji ni ko asqini surbatama wa asqika gadan iwadaha maanaam may ma ma naan kaasu ndox wala góoxu ndox bu ëllëgee ma nàndal la nga naan ci déggu kaw kawsara waa ji dal di jël ndox mu sedd guy ku ñàkk yi bañ nga jox ko lu sedde noonu ndox mu sedd guyy la ko jox ma maanaam daf ko naan rek dafa jël rek seex ba ñuy wadd deret ji sànni mu daal di jël ndox ma delloo ko visil bi daal ni ko fala xaajata lii bihi laalli amuutu atshanan daal ni ko soxla soxlaatuma sa ndox man sax dama yaakaar ni damay faatu ci ak mar ñu jël ko dugal ko ci ibnu ziyad bi ko muslim xoolee bi muslim xoolee ibnu ziyad wax ji la wax dani السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى واتاع الملك الاعلى نانا جام يالا نيك تي توپ نجوب تا رغال الكاندي تا توپ بور بو ماغ بي موي سون بوروم سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى بما وخي لولو ابن زياد دالي ري فتبسم ضحكا من قوله فقال بعض الحجاب يا مسلم لما لا قلت السلام عليكم أيها الأمير بنيو وخيلولو ابن زياد دفا دال دي ريتان دال دي وخ كان تي فيزيلي وخاك مسلم نيكو لن موتخ وخو السلام عليكم مسلم نيكو لا أمير غير سيدي ومولاي وابن سيدي وحبيبي وقرة عيني وابن عمي الحسين بن علي ابن أبي طالب وأنا مسلم ابن عقيل wa inni la axaafu min al euh, bi nga xamee ni wax na loolu ni ko lan moo tax nuyoo woo mu ni ko du ma nuyu kudul sama sang ba sama kilifa ga sayyidi wa habibi ki nga xam ni mooy sama sedd xol sama doomi bàyyi tax ba al xusayn ibnu ali ibnu abi talib te man maay muslim ibnu aqil ragaluma dee ibnu ziyad ni kii faawu ñu ray ni la budda min qatlik fi yawmika hada munta fexe ba duñ ko rey muslim ni ko yaa waylak in kaana wala budda lii min al qatli fasrif lii rajulan qurashiyan usihi wasiyatan bu fekkee ni da ngaa déjjërle da nga continuer ni da nga may rey ma ñaan la benn affaire bokk na nga jox koo xamee si ne Quraysh la dëkk mu rey ma wala astaghfirullah Quraysh la dëkk ma dénk ko ay baat Omar ibnu Saad jóg Omar ibnu Saad mi moom de Xurayshi la waaye mujj na pousse bi mu ndax bokk na ci ñi nga xamee ni si ni soldaar si doon rey Seydina Xuseyn buñ ca yeggee ànd koog Shamir ibn jëw Jawshan soldaar soosu moom mi moo ko jiite woon moom Umar ibn Saad mu ni ko yaa muslim aw si xaajataka mu ni ko léegi man la Umar ibn Saad Qurashi la waxal sa ndénkaan mu ni ko awalan shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bi ci njëkk mooy wax baat yi rek ñaareel ba mu ni ko ida qataltumuni waaraw jasadi bi turab mu ngeen ma rayee sama déppu yi na ngeen ko suul na ngeen ma dimbali ba suturaal sama yaram ñetteel bi mooy biicu dirhi dirci haada wadfa'u thamanahu li fulaan ibni fulaan aw li fulaan fa inna lahu alayya dinaaran maanaam bu ngeen ma rayee na ngeen jaay sama mbubbu koŋ mi sama tenue de guerre bi na ngeen ko jaay te ngeen faye ko diw ndax dama ko yoreel bor ñeenteel ba mooy uktubu ila sayidi alxusayn innahu la yaatikum likay la yusibahu ma asabani li annahu balagani annahu xaraja min almadina wa huwa wa awlaadahu wa asiyatuhu qasidan ila huna na ñeenteel ba mooy nangeen ngeen ma waxal sama sàng ba ni ko bu mu ñëw ndax dégg naa ni génn na te mi ngi ci yoon wi jëm si fii te bu ñëwee da ngeen koy rey ñeenti ndénkaan yi la joxe moom euh, muslim ibnu aqil bu ci njëkk mooy tudd baati seede yi ñaarel ba moy buñ ko rayé nañu sutural yaramam ñettel ba moy mooy mbubbum koŋaŋ mi dafa am ku mu yoon bor nañ ko jaay fay ko ko ñettel ba moy nañ ko jàngal nu yom ci sayyidina husayn radiyallahu taala anhu ta wax ko ni ko bu mu ñëw ndax bu ñewé dañ koy ray ay bi waxé ba nopi Amru bnu Saad dafa jóg ni ko amma ma dakarta min jihati dirci fa nahnu l na li nga wax ci sa wàllu mbubb koŋ moomu di ko faye bor ñun ñooy choisir ba xam dañ la koy jaayal defal la li nga wax wala déet loolu moom ça dépend de nous li nga wax it ci Xuseyn ibnu Ali munta bañ a ñëw faw mu naan ci mbalkam dee faw ñu rey ko bi waxee loolu ci la Omar ibnu Saad daldi daldi di gestu dal ni daldi wax uh, muslim ni ko lan nga lan ngay dénkaane muslim wax ko li mu dénkaane lépp waaye mu ne kii de xanaa xamuleen ni uh, maana ibnu ziyad moo moo moo gestu wax ko loolu mu ni nag xii kii xanaa xamu leen ni rey na lu baree baree bari ci sunu soldaar si li ñuy def nag mooy jox leen daal am ñum woo ni ko ni leen yégal leen ko ci kaw étage bi gën a kawe ci Kuufa reyin wu ñaaw lañu rey Muslim ibn Aqil étage bi gën a rey rey ci Kuufa gën cee njool lañ ko yégal waaye buñ ko yégalee ma ngay sàbbal sunu borom subhanahu wa taala yusabbihu allah taala ويستغفره ويسلي على النبي صلى الله عليه wasallam maanaam biñ ko yégalee ba koy waaj a daaneel ci suuf ma ngay sàbbal di tudd yàlla subhanallah astahfirullah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim loolu rek la fa nekke woon bi ñu ko bëggee sànni nag muslim ni leen may dana mu julli ñaari rakka may leen ma ma julli ñaari rakka def li ma bëgg def ngeen dog ma ray waye nañ ko gàllankoor ni ko lolu mun fi nek waxtu bi xat temps bi jeexna muslim joy ngir jaax jaaxle ngir mititlu ci ibnu am al husayn ibnu ali mi nga xamne mi ngi ci yoon wi ñew te bu ñewé dañ ko def lu rawli muy xol ni la jor di xol chamagn gisul ko ko bëgg gisul ko ko dimbali ngor si ñëw war ko ray yóbbu ko ba ci étage bi gën a kawe daldi bëmax mu daanu suñ borom gaawé ruh ga yóbbu janna radiyallahu anhu yàlla yàlla gëreem muslim لأنه بذل نفسا نفيسا نفسا ونفيسا وجاهد في الله حق جهاده حتى قتل خمنا كن وقت ah xam naa kon ak it yaakaar naa fi ñu taxaw moom taxawukaay la ndax it ay mawqif la yu doy waar yoo xam ne maanaa alhamdulilahi rabbil alamin waaye bu ko defee rek ñu bàyyi ba incha allah fan yi di ñëw ñu yeggale in uridu ila al islah ma sataatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu